Ndogolo bu yàggul général bu Fass moo ko daan ay Fall production ay ca damay ragal ragal yu jiwaloo ñoom ñaar tey nongo dafa tee boppam tey Ndogo touché na Ndogo touché waat na ñu ngi xeex ñoom ñaar Ndogo gi touché Ndogo gi touché Bambaye Ndogo gi touché Bambaye Ndogo gi touché Bambaye le Puma face à Bambaye na ko jàppul ñu ngi damantay loxo Ndongo Lo Bambaye drapeau des petits fils du Sène jeex na ku rëpp jeex na ñoom ñaar yëpp a rëpp ñoom ñaar yëpp a rëpp jugaat combat fantassin la dañu mën a bëre xale yi ñu ngi xeex nangu loo Pambay nangu tekk na ko mu ngi koy tegal 16 Pambay rëcc na ci da nga doon tegal 16 lu ko tegalal 16 tegal na ko 16 waaye Pambay toogu ci oh oh Pambay naka nangu loo daan na